muy Tawfekh ju rëy kenn xamul fu mu waaw nee na sant na yàlla lool ci ci ci siyaare gi ñu def ci bis bii nga xam ne dañ ko day sunna ci digle ko ko ci siyaare. nee na barab bii ngeen nekk tey nag fenn gënu koo màgg ci Touba ndax Sëriñ Touba ko màggal. nee na kon na ngeen xam ni mu demee ci Touba moo tax mu jagleel leen ko. maa ngi yéen nee na itam liggéey bi ci nekk lépp ci a ko liggéey. ak yeneen yi ne feneen. nee na mi ngi leen di bége bu baax te di leen san nee na sëñ Tuubaa mi leen tax di def moom la ko seereel ne ne di leen mu ngi leen mu ngi ni sàkkul ci moom itam li mu digge ci yoon wi jëf ci jariñu ci lépp fekk nu ci nee na yàgg fee ñëw yàgg ko fee fekk nee na yéene yëpp gis nañ ko bu baax a baax nee na yére it gis nañ ko bu baax a baax seet na yëpp yére daara la yére kër gi la di yére daara ji ne mi ngi ci sant bu baax a baax ñu nee na mi ngi ñaan ñu daje cee ngërëbal sëñ Tuubaa itam ak ndimbalam ak tawféexam muy tawféex ju kenn xamul fu